mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci neuvième édition àddina ba léegi ci Tëngéej tey ma taxaw ci benn boo xam kilifa gi noonu yoo xam fi ma fan kilifa gi ah, lay siyaar rek kanam bi jox sa wàccuwaay di nuyu waa Sénégal tey bi. fii mooy fan. Ah, ah, fii mooy box numéro numéro huit. Uh-huh. waaw Mbésiré mu tudd Touba Taïf nekk Petit Mbao deuxième porte. macha allah. Touba tay ngeen def ñaari box def fi mâle ak ay femelle def fele ay añal yu doy war tay mâle bi moy kan mâle bi mooy Cobra Fils di dom si Cobra yaam yaam nek label label dom ci Picasso macha allah euh, fu mu jógee moom mu ngi jige Petit mbaw Petit mbaw non ban ban ber seri wala yéen a ko juddle ah, ñoo ñoko jullé juddle ah moom ah, ñaari mois ñu ngi 19 19 mois 19 mois ok macha allah euh, ñaar yeen femelle la àndal mom moom ànd ben ben ben dom bayam uh-huh. mooy kan boobu ànd doom benn doom baayam. mooy bombaat bu ñuul bi la. ki ki mooy ki ki ki mooy ki mooy ah, Fabintu. Fabintu waaw waaw. moom doom si Cobra. Oh. yaayam nekk si uh, doom si kii. doom si mm, kii. Uh, Mifta. Mifta waaw. Ah. ok am ñaata porté Fabintu. waaw benn porté. benn porté ji.

macha allah maal bi ana production moom. maal bi kii production la. moo demee moo demee production la. am na ñaari ah, am na 15 jours. 15 jours waaw macha allah. am na am na fi ay production. ah am na yu si jur. am na fa ay production waaw. xam nga ci Agnelé lañ jëm maal bi tey euh, tey ci ban sens dëggantaan la bokk moom. Ah, maal bi laal na si euh, Saloum deux fois. Mhm. waaw parce que su ma xoolee moom côté yaayam. Mhm. doomu Saloum la ah. Mhm. côté baayam benn benn magu Saalum. moo ko jur. waaw. moom bu ngeen di vingt six mois. dix neuf. dix neuf non maa ngi moom dix neuf mois. dix neuf mois waaw. kon léegi tey bergerie bi nga xam ne mooy bergerie Touba Taïf ci yan sang ngeen liggéey avant ngeen di ñëw fi après dem ci ci añal bi. waaw ñu moom daanaka dañ laal si sa sang yëpp. ok laal nañu Abdou Fall bi laal nañu si Gelwaar bi liggéey nañu si séeréer bi ah. liggéey nañu Mifta bi. li ngeen xeetu xeetu catégorie bu ñëw. Uh-huh. ñooñu am nañ si waaw ah, dañ si liggéey. parce que parce que xeetu catégorie bu ne ak lu muy indi. xëy na indi doole ñëw indi masras ñu indi esthétique. macha waaw macha allah. jërëjëf def ci àññeent. waa ñaari box. ba ñu jógee fi maal bi nekk ak femelle yi ñoo naan beneen box boo xam ni fii ay añee laa fi gis euh, fii euh, euh, production bi fi nekk nu mu demee. ah production damay sawar si wax si parce que parce que tax ma jël ñaar boosi bëgg a présenter ay doomu maal bi. waaw euh, te tey boo xoolee kii. kii te nuyu weex bi te nuyu benn doomu kii ma ko benn doomu. jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama nekk benn doom jooy. ok yaay nekk doomu Baxdaat. ok waaw ok boo si kii. ki nekk doomu yole yoole blanc bu am corne yi waaw ah, yu doomu yoole yoole la moo kii ñëw ma ko bay pap moo moo robu ñuul bu am corne yi ñoo ah, ko bay pap waaw robu ok waaw boo ñëwee ci añel bi ok eh, ne nekk doomu albaraka bi waaw ah. bam tom bu bi ci kaw waaw bam tom bu bi nekk doomu albaraka albaraka mooy nekk mal la waaw doom la waaw ok kii yaaji ngay ngay yaaji nekk doomu asiyuru ok waaw Euh, boo ñëwee si kii kii doomu maam bi la dama ko te bu ñuul bi waaw te bu ñuul bi. waaw bële laax su ba daaxul xaar moom. waaw bu ndaw bi. bu kii tamit dama ko rafetlu. dama ko rafetlu dama ah, bu ñuul bële waaw. robe bu ñuul te koor day gàtt. waaw ah, kii kii doomu kii doomu kii doomu dadaas. doomu dadaas la allah. ok ah, macha allah kon añel yi dafa ay añel yoo xam ne soit euh, dageen jël seen yaay dem lu ji wala. waaw am na am na yu gën a seen yaay ji taw ji mais am na yoo xam ne am na yoo xam ne dama ko dama ko jënd. ok waaw kii kii ni ma ko jënd. waaw borom ñu rob ñuul bi te gudd moom na ko jënd. mais moom ah. ah dama yore ko jënd. moom tëbagul. moom moom tëbu na waaw. tëbu na tëbu na. ok mu ci un an. mu ci un an. waaw des yëpp des yëpp si sama loxo ñu juddoo. kan kan kan, kan moo ko tëb kii. Ah, maal bi ko tëb. maal bi ah. coopérative moo ko tëb. Ah. mais borom tout blanc borom koor weex yi la. kii tamit dama la. donc yoon la moom it yoon yoon la waaw. kon ah, ay añale fi nekk. ah, ah añale rafet nañ trop añale ñoo fi nekk. Hmm? Ah, ay ay añale plus ñoo fi nekk. waaw oui macha allah liggéey bi rafet na kay. waaw kontaan nañ trop. merci